ginnaaw bi ñu leen nuyoo di leen dalalaat ak jàmm ci seen chaîne bi Leader TV day wax ne bu leen fàtte abonné gannaaw loolu ñu ñëw ak si suñu revue de presse yi ñu njëkkee suñu làmb suñu làmb ñu ngi fay fekk gaynde géejowaay bii di Balla Gaye 2 moom mi nga xamal Gris Bordeaux naan dinaa la dóor dinaa la jàpp dinaa la daan ba tey journal bi ñu ngi fay fekk kooku di Épongari mi ngi xam ne naan Ada Fass mii mooy gaynde gu bees gu Fass gannaaw suñu làmb dañu ñëw yéen ak stade stade ñu ngi fay fekk photo Aliou Cissé boobu nga xam ne mooy tàggat suñu gaynde yi gannaaw bi nga xamee ni journal bi mi ngi bind naan Aliou Cissé li mu doon sàkku defal nañ ko ko gannaaw bi nga xamee ni weer yi ñu génne Aliou Cissé doon sàkku lii kaaf toxal qualification coupe d'Afrique boobu de war a am sa Côte d'Ivoire nga xam ne ginnaaw stade ñu ñëw ak yéen ak record record ñu ngi fay fekk président génération foot boobu di Madi Touré Madi Touré moom mi nga xam ne naan lii nga xam ne mooy ligue pro bi dañ ko war a gën a mën a yaatal ñëwaat na si compétition yi nga xam ne état bi da jox équipe bu football yi nga xam ne ñoo nekk suñu réew ba tey Madi Touré mi nga xam ne naan suñu compétition yi nga xam ne mooy am si suñu réew dañ ko war a gën a jekka-jekkalaat nga xam ne daanu ko mën a jaay bitim réew ba tey ñoo ngi fay fekk ba tey journal bi suñu xam ne ñoo dër 2-0 foofu sa ñoo ngi fay fekkee l'international sénégalais bii di Sadio gannaaw prix bi nga xam ne jël na ko démb gannaaw record dañuy dem bi waroon na nekk bi ñu yóbbu ko ba ba tey ñu ngi fay fekk suñu gaynde jigéen kaan boobu nga xam ne ñoo amal sa Maroc gannaaw bi nga xamee ne seen premier match dóor nañu ñaari bal si dara ba tey ñu ngi fay fekk l'international sénégalais bii di Sadio gannaaw prix bi nga xam ne fédération ghanéenne du football jox nañ ko joueur africain bi nga a wane boppam foofee sa bitim réew ñu ko say